kon actellement damay wax ne problème yi ñuy dund ci monde islamique wala yi ñuy dund ci biir réew mi di wala li ñuy jànkonte ci yoonu biir yoonu murid mooy ñi war a wax ni ko Sëñ Fallu waxee léegi ñoo waxul ndax Sëñ Fallu rek la nga mbir mu wax nga ñi wut wax day wax ak ñi wut ñi nga xam ne mënuñoo wax ba pare foo leen fekk ña ngay wax ak ñi nga xam ne li ñu wax xamuñu ko mais am na keneen ku ñetteel koo xam ne yii jaxasoo moo waroon wax boo waxoon rek lépp sot lépp saafara mooy ki nga xam ne mooy kilifa gi kilifa gi bu fekkee ne pénc mi jaxasoo na lépp am ay jafe-jafe day nar a wax sax waaye day am ñu ñëw ci moom loolu tam problème la kilifa gu nar a wax am ñu ñëw ci moom ne ko sëñ bi jërul wax lii de jërul day day day kii rek loolu gis ngeen ko ba tey kilifa war a yëkkati kàddoom war a régler mbir ñu ñëw ci ne ko sëñ bi lii de jërul lii de wax li nga naan ko jërul nag mooy indi problème bu rëy mooy dem ba kàddu sëñ bi sax mënut ko faj te loolu gis nañ ko ci jamono bi ñu toll politique yi daan xew ci dëkk bi coow yi daan am jaxasoo yi daan am sëñ bi war a yëkkati kàddu ñu ne ko déet sëñ bi moom da war a bàyyi at ba at nga wax wala julli ba julli nga wax te moo waroon chaque àjjuma mu jàkkaaru nit ñi wax ak ñoom yee leen ci problème boobu léegi at ba at nga bëgg a wax fekk li nga doon tere chronique na ci di doomu aadama yi fekk na doomu aadama yi tàmm nañ li nga leen bëgg a terloo at ba at tàmm nañ ko tàmm koo xam ne boo xëyee suba ak loo mën a wax mën naa am jeexital bu gàtt waaye dañuy delluwaat ci lañ mënoon kon problème bépp nekk ñàkk a wax moo ko waral moo tax yonante yi yàlla yónnee ñu wax suñu borom alquran karim xitaab la boo xam ne wax yàlla la moo yàlla wax ko jox ko yontu salance la mu wàcce ko yontu salance la li ñu wax ci xadis kenn xamuñu doon binduñu lépp sax donc kon biñ noppee wax nag bàyyi wax ci la problème bi am ndax dañuy wax ida sakkat ahlul xaq istafa ahlul batil maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci te xam ni lii mooy dëgg bu ñu noppee rek ñi nga xam ne ñoo nekk ci caaxaan moom la ñu daal di continuer gën a maam ñun nag yoon bi dañu waxante dëgg mais loolu lañ manqué borom nga xam yëpp maanaam euh, dañuy dem ba yow yow da ngay dem ba sax bañ dugal ci benn benn fiir goo xam fiiruk saytaane la ndax wax ju bari jëru lii day noppil lii day moom sa personnalité day yàq lii nangam nangam comme Sëñ Tuubaa li mu doon wax ci euh, mën da ci ci bi min baax demaakaadam ti daaxu naas yi yu duxi lañ fi sarakil xan naas maanaam nit ñi da tagg yow day jëru ko man ngaa toog mën ngaa def nangam nee na ma dem ba bëgg dummóoyu sax njàngale ngir yem ci kurus gi rek ngir bëgg du duddooy gindi nit ñi ngir bëgg a yem ci jàkk ji kese Sëñ Tuubaa daan ne di ko ne bërët kon li ma bëgg a jaay ak li ma bëgg a wax loo ne ma personnalité bi nii la ak nee la du ma ko def mukk naa ne bërët dem jàngale dem wax dem wax gindi doomu aadama donc kon ñun problème boobu actuellement ni la ñu waaye buñ bu fekkee ne ñi dëgg ñeme nañ ko te tamit da nga wax lu am solo ndax discours tamit faw ngay jàngat jamono bi waaqe am waaqe amee ñëpp xam nga fi doon la may wax ne ñun fi ñu doon fi ñu toog nii ni ñu ñu dañoo raw suñ xale yi ñu am suñ doom yi ak suñ ak taalib yi nga xam ñoo topp ñoo topp ci ginnaaw dañoo raw ñun li ñu rawee mooy dañoo yor whatsapp wa yor facebook di déglu discours yoo xam ne yow accès goo ci xam xadisu saa maanaam li xew actuellement nii tàng tàng bi ñoom yor nañ ko di ko déglu te yow yëggu ko yow sëriñ bëgg a léegi bu fekkee ne yow tamit ñëwoo jéem a xool li xew ci jamono bi actuellement nii ak li nit ñi paasante ci maanaam maanaam maanaam pénc mi ak li ñuy waxtaane maanaam nga bëgg ñëw toog waxtaan ak ñoom yow da ngay wax ba pare àgg ba wax ba àgg àggal ñu du la wala boog li ñuy wax ñu moo tax yéen sallallahu alayhi wasallam moom mi xam moom la yàlla yu noonu lu xew ci pénc mi boo gisee àjjuma sax àjjuma ñu ne xutba bi nañ xool li xew ci pénc mi ñu waxtaane ko loolu lañ jublu waaye bu fekkee ne yow da ñëw réerantal li nit ñi dund muy jafe-jafe ak problème bi nga bëgg andi beneen discours booba nit ñi duñu dégg donc da ngay jàngale duñu dégg moo tax kon fahmul waaqia al waajib fil waaqia nga xam ko dëgg-dëgg maanaam loolu dana mën a dimbali boo jëfee sa discours doomu aadama la mën a dégg waaye bu sinon da ngay wax ba àggal fi ñu doo boo xoolee li ma ko nattee suñu waxtaankat murid yu bare bare dama ko far di wax euh, boo euh, caméraman yaa ngi may tiib seen compte YouTube gis nga boo demee def discours la mu gën a neex boo ko defee wii tey boo doon nat da ngay gis ko xam wax def na waxtaan semaine ku mel ne suñu bàkk Abdourahmane ak keneen ak keneen mais des fois am na discours bi ni muy ñëwee vie yi daanaka du mat du mat mille mille mën naa dem ba weer jot waaye moom heure bu duggee suñu bàkk Abdourahmane bu ñëwee dugg ci juge boo xam ne actualité la bu leer la waxtaan ci balaa mat semaine da nga gis cinquante mille vies parce que daa ñëw ci feebaru nit ñi daa ñëw ci li ñuy jàng li li ñu bëgg ku leen fajal ku nga dugg ci ba mu ci duggee ko nit ñi commencé déglu mu am njariñ mais da gis waxtaan kat yu bare bare bare bare boo demee site internet yi bu ñu waxee boo demee boo demee ba un mu jot doo ci fekk mille mille bi parce que la ko waral moo tamit foo waaqi al waaji fil waaqi ah, dañ ko waxut